asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki jullit ñi ngi nuyu ñëpp ah di siyaar ñëpp bu baax a baax di leen jox seen di wax ñoo ci nañ ci seen waxtu julli de prière di du 17 au 23 juillet 2020 fajar bi mi ngi nekk 5 heures 35 suba si mi ngi nekk 5 heures 50 tisbaar mi ngi nekk 14 heures 15 takkusaan mi ngi nekk 17 pile. timis mi ngi nekk dix-neuf cinquante géewe mi ngi nekk vingt heures cinquante yal na yàlla nangu suñu jaamu yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.